mbokki internet yi nuyu nañu leen ñaanal leen jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen jëmm ji ngeen jàkkaarloo dafa mel ni miin ngeen kanamam ci wasaare saa su nekk dañuy ñëw ci moom di ko déggal dégtal suñu micro waaye tey dacee raw ndax dafa am mbir yu bari yoo xam ne nii dajale na ko ñu fas yéene cee waxtaan waaye it ñu daal di koy duut baaraamu tuuma loolu danañ ci ñëw ci ni mu gën a yaatoo ndax nag euh, nii la ñuy def saa yu ñu leen wax indi lépp sëriñ rek ba ñu wax ci moom dara dañuy delluwaat ca moom ngir mu leeral. Euh, wala mu wax mbir ma naka la demee sëriñ bi kii mooy sëriñ euh, Moustapha Fall Kéemaan ñu gën koo xam ci saltige euh, moom nag lépp lu ñu mës a wax lu ne rek teg nañ ci suñu bët am na nag luñ ko fiy jiiñ tax na ñëw fi waaye ci kanam dinañ ci xuus ci nu mu gën a yaatoo sëñ bi nuyu naa la waaw maa ngi leen di fay auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sëriñ Touba jaaraama borom daaru jaralak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ñaan bu baax ci kàttanuk Cheikh Mourtada moom suñ fàllu sunu wasila sunu sëriñ yàlla na fi yàgg loolu te di ñaanal bu baax xalifatul xam bi tariqatil muridiya muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu boroom guddal fanam te wéral cëram di ko ñaanal baax xalifa général di Baye Fall muy Serigne Amdi Modou Menda moom mi fi wutu Cheikh Ibrahima Fall sunu borom guddal fanam wéral cëram ci kàttanug Cheikh Ibrahima Fall làmp Serigne bi ñu ngi leen di fay. seex bi mel ni da yokk cere dolli ñeex. Mm-hmm. bi ma fiy mujjee dafa mel ni euh, barab bi melul woon nii. Mm-hmm. tey ma ñëw fekk fi ay mbir yu baree baree baree bari. Mm-hmm. Euh, lu lu xew. waaw sëriñ bi mu mel ni comme niñ ko waxee rek daanaka émission Sendeel ak génne alxuraan ji daanaka gis naa ko sox def waaye at mu jot nit ñi dañ may xam ci fen dane ma def ay révélation yoo xamante ni ci war a at mi li ci war a xew te nga xamante ni dañ koy teg li wàcc ci laahi tabaaraka wa taala li nu yàlla woon yàlla nag mooy fal xulillaahi maalikal mulki di fa xaalit dama yurit mooy def lu ko sob mën na noo woon nag lu nu war wax wax ci ay sarax ngir nit ñi moytu ko moytu balaaye ak génn ci ay sarax waaye dernière décision daal na jaam ñi xam ni yàlla moo ko man moo ko moom yàlla woon la dara déperñik ko mi ngi mel ni la Seydina Ali waxoon rek ndaw sa ñëw ci moom ni ko dama bëgg a xam ban doom laa ëmb fi mu toll nii mu ne ko góor de nga ëmb fi mu toll nii mu dem ba matoom jot mu jur jigéen mu ne ko alinde jigéen laa mu ne ko dara naru lu dul loo ma ku dul borom barak bi di borom baar mi kon nañu xam ne li ñu yàlla woon ñu war cee génn sarax dinañ ko wax li waj illaahi tabaraka wa taala waaye dernière décision nañu xam ni yàllaa ko yor ndax mooy ki nga xamante ni lu ko neex def lu ko soob def mu yàlla suñu borom tabaraka wa moo tax ñu génne bagage yoo xam ñaari at yoo xamante ni gëj nañ ko def waaye xam-xam bi ñu ngi koy wax vëdu muy ñi nga xamante ni min nañ Inde min Nigéria min côté Bénin ñoom ñoo koy liggéey moo waral ñu indi ko fii tey ngir émission bi tey dañ cee war a def ay révélation yu baree bari ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala baax na dinañ def ay révélation waaye sëriñ bi dañuy njëkkee ci wàllum seet. Mm-hmm. am na ñu bari ñuy fëgg seen dënn naan man la man la man la. waaye mm-hmm. gars yi ne nañ gisuñu de. Mm-hmm. ñi mën a gis bariwuñ de. ñi mën a gis bariwuñu. waaw dëggantaan mu mel ni ku baax ki ah, ñu bari dañuy wax loolu man na ma la waxoon rek am na seet yoo xamante ni ñii ci kurus ñii ci ndox ñii ci nangam mais man maa ngi seet ci seet boo xamante ni moom la ñuy wax ramli di seet boo xamante ni yonent yàlla Idrissa moo ko jàngal jibril moo ko jàngal yonent teel idris ci ndigalu sunu borom tabaaraka wa taala ba mu ko ko jàngalee ba pare sunu borom nee na ko yow idrisa jibril laaj ko fan nga féete mu féete ko ci ñeenti xible mu ne ko gisuma ko ci xible yi yow mii de boo dul jibril ma xam ni seet gi mokkaluma ko koroog la ni ko mokkal nga ko jox koy tegtal ñun nag ñooy borom seet jooni jooni borom caméra surveillance loolu ku ne xamee nañ ko at mu jot ñu di ko wax képp ku ñuy liggéeyal moo xam biir réew mi ak bitim réew seet la ñuy njëkkee tari sa jëmm ji yaa ñu gën a xam sa bopp ñun li ñu gën a ci seet sax muy bu ñu wax lenn bul expliquer wax ñu liñ lay laaj newal ba amerique newal ba Inkong newal ba Fongolemi newal ba Chine newal au foo du monde ñu seetal la wax la ci sa jëmm loo xamante ni loxo day dar gémmiñ ñun ñooy Cheikh bam ni jaran ci kàttanu yàlla tabaaraka wa moo tax ñu ñu bettee Cheikh Moussa borom Kéemaan Cheikh Moussa borom seet ñun daal képp koo xamante ni nii ñu ngi liggéey ak yow seet la ñuy njëkkee ak yow ci kàttanu yàlla tabaaraka wa boo ko mënul jógal nga dem feneen ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu lañu ñu ne. guddi ak bëccëg ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala moo tax ku ne liggéeyal seet la ñuy njëkkee yow ñun ñooy Cheikh Moussa borom seet ba mu ni jaaran ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala mais gars yi dañ lay seet dañ lay dañ lay seetal ba pare laaj la nga jox leen ñu naan la mm. gisaguma la ak wala nga leen di woo doo leen jot. exactement loolu daa am ci sëriñ si moo tax toujours ma wax ko léeg-léeg nit ni ma maa ngi jéggalu sax sëñ bi yow laa jot ma ne ko man day bis set ma wax ko ci émission yi amul ma sàmba amul ma demba samay téléphone ku jot man nga jot léeg-léeg guddee tëdd gi kay fayaat yi ak yenn liim yi ak yenn wérdi yi mooy tax ñuy guddee man dama naan soxla si nit du ma xam nu mu toll léeg-léeg ma wuyu nit téléphone sax mu ne ma sëñ bi maa ngi jéggalu est yow la waaye nañu xam ni képp koo xamante ni yaa ngi may woo man ngay jot te kenn du ma woo wa ma war la jox la set joxuma la ko wala ma war laa liggéey liggéeyalu ma la ko moo tax képp koo xamante ni amel nañ la seet boo fi bàyyee vocal ci ñaari numéro yi incha allahu rabbi ci kattanu yàlla tabaaraka wa ñu wax la sa jëmm nga gis sa bopp jaxaran dugg ci sarax yi dugg ci rawaan yi ñu war a commencé liggéey bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala kooku mooy Cheikh Moustapha Fall Kéemaan seex bi ñu dugg ci ci liggéey bi tey damaa ñëw fekk fi guro. Hmm. guro gi ku baax mu mel moom. kenn ku ne xam na kook man daanaka bàyyi woon naa ko sax gura la boo xamante ni ñi nga xamante ni dañu am jëkkër wala ñu am jabar wala ñiy bëgganteeg nit ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala tàkk-tàkk bi am ay jafe-jafe wala seen digganteeg ñoom am ay jafe-jafe ñu yàqal leen incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla Cheikh Moustapha Fall boo ci digganteeg moom ku ñu yàq séem muy góor wala muy jigéen wala ku am jafe-jafe sa digganteeg sa kër muy sa lu mën doon boo seet see secret boo xamante ni diñ ko def am luñ la wax nga suul ko ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala boobu nu mu meloon wala ngay bëgg góor wala ngay bëgg jigéen mu lay të ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala boo ci jëflanteeg ñun incha allahu rabbi di ko sant sant di nga kontaan muy Cheikh Moussa Fall borom guro gi ci kattanu yàlla tabaaraka wa moo waral ñu génne guro gi. guro gi lan la nopp la wala lu waaw guro gi nopp la day dox ci nopp képp ku nu ko def yaa ki nga xamante ne ci ngeen di dox day mel ni xaj ak boroomam ci kattanu yàlla tabaaraka wa moo tax nopp la goo xamante ni noobantuwul dafa doy dafa kéemaane. moo tax ñu naan ñu Cheikh Moussa Fall borom nopp gu wér gi borom noobu jinne gi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allah rabbi Cheikh Moussa Fall borom kéemaan boroom def gis moo waral guro gii di dox ci nopp. voilà mais ba léegi pareeguma ma ndax hmm. euh, ñeenti sondeel yaa ngi tàkk. Hmm. ba ba nga tàmbalee ba léegi ñeenti sondeel yaa ngi tàkk. Hmm. waa ñeenti sondeel yii nag. nit ñi nga xamante ni seen mbir dafa të nit ñi nga xamante ni war nañ leen dugal xalwa nit ñi nga xamante ni njabar nañ leen nit ñi nga xamante ni liggéey nañ leen nit ñi nga xamante ni dañuy tawat tawat di ñuy dem hôpital du ñu gis dara nit ñi nga xamante ni yàqal nañ leen ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ba seen lépp yàqu maanaam ñu nit ñoo xamante ni yoroon nañ ay place place yi di ruus wala ñu naawtal leen ba ñu génn réew mi wala kër goo xamante ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ak njaboot dañuy reyante guddi ak bëccëg wala nga nekk ak sa njaboot nekk ak say soxna mënoo am ci yow jàmm incha allah rabbi li xam-xam bi vëdu la inde yoo koy liggéey ak nigéria yi muy dox ci xam-xam bu ñuul kuk ndax dañuy ay xale jàngi xam-xam dem Mali dem Burkina dem Togo dem Cameroun dem Nigéria dem gine dem Mauritanie lépp ci xam-xam ñun ba nit ñiy toog dina ci saal yeeg ci jasineer yi ñun dañoo jàngi xam-xam dañoo wër ay réew ci gone gu ndaw ñi ñu bokkal xam nañ ko ñi ñu seetaan xam nañ ko ndakaaru gi bi ñu aal yi topp dëgg suñuy bagage yi maam war ñëw ndax dañoo yor ay bagage yoo xamante ni ñemeetuñ ko ba muy bagage bagage faalen di ak ceddo yor bagage ndaw kunda kenn ku ne xam sunuy maam Amari Mbàkke Ndaw ca Bundu borom Kaffrine borom Ndukkumaan ñu doon ceddu pire bi ñu bagage wuy see ñu war koo jël nit ñu ñu dëkkal xam nañ ko daan nañ bàyyi ndakaaru nekk o foo di Sénégal foofu lu manqué réseau metti moo nuy dàqal ndakaaru ñu du ñu taxawaloo du ñu wër muy wàllu rab ba ñu jot sëkk ci bagage yi indi moo tax dañuy boroomi rab di boroomi jinne ñi ñuy seetaan ndax internet dafa yaatu fen xaju fi nit ki la seetaan xam na bu ñu aal ji dëggee dugg dugg dëgg dëgg ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala da nga ñuy romb doo ñu nuyu ndax fi mu ne ci ñun ndax bu boobaa képp koo xamante ni gis nañ say mbir duñ la ko sax bëgg wax te saraxuñ ndax sunu xalima du laa suuf sunuy mbir du laal suuf moo tax ñu naan ñu Cheikh Moustapha Fall saldige Cheikh Moustapha Fall borom jinne yi moo tax ñu indi sondeel yi sondeel yi ñi ñuy yàq njabar leen yàq seen yaram yàq seen i mbir buñ leen war a liggéey sondeel yi la ñuy war a taal du ñu taal làmp yaa ko seereel sa bopp sama làmp nekk taal nga ko daanaka bi gëjee tàkk ak léegi léegi mu jege te ñun ñoo ko def ñun ñoo ko liggéey ngir sondeel yi ñu di ko ci liggéey gëj nañoo taal làmp wóor na seexul xaddim wóor na maam Cheikh Rafal moo tax tey ñu indi bagage yëpp ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala fa yéenee wax jaam ñi ak ñu moytu balaa yi nga xamante ni sunu borom def na ko mu war a taxaw ci ren ci at mi ndax at mi dafa taxaw ci biddéewu yonent yàlla fa weer yu njëkk yi xaaju weer wi daanaka mën naa tegu ci ay tolof tolof muy diggante bi ko doomi bàyyi sonalee te mu géntoon gént ga baayam ni ko wat naa ni bu leen ko wax ndax say noonu lañ muy gént na fukki biddéew ak benn di su jootal weer ak jant sa baayam ni ko yanqoo ba ni ko giiñ naa ko jàll bu ko sa doomi bàyyi déggee dañ lay sànq koroog bi ñu àndeek benn yaamin ak doomi baayam ya war ko tàbbal ci teen bi ñi naan nañ ko lii ni naan ko te mbokkam ma ni bu ko kenn rey doomu yonenti la buñ ko reyee ñëpp dañ koy àllu dugal ko ci teen ay jégg fekk ko fa foor ko yóbbu ko Chine yóbbu yóbbu ko Misra maanaam muy fii nga xamante ni moom la ñuy wax Égypte sunu borom def moom Yuusufa rafetoon na banaan naan naan man de buñ ma doon jaay kenn amul sama njëg te nee nañ liñ ko jaayee matul junni mu ne fa ne ca soxna buul ba di jaleexa mu bëgg ko lool ba diggante góor ak jigéen ndax borom këram doon woon góor amul woon doom mu yar ko sunu borom def ma xemmem ko koroog ba mu koy waaj a sàkku borom kër ga ñëw liñ naan pexeb jigéen dafa njëkkanteeg buntu ba ni ko loo xam ci koo xamante ni dafa naroon lu ñaaw ci sag njaboot korook la yonent yàlla yu sa ni tuuma gii ñu may teg ci dëkk bi bu fekkee dama ko nar a dund yàlla nañ ma tegal kaso sunu borom teg ko ko teg ko fa kaso mu dugg dund fa di leeral waa gént di firi ay gént waa kaso ba di leen yërmande di feebar ñi faj di leen dalal ba waa kaso bi ni ko yow de yéex ngaa ñëw ci kaso bi korook ba ay nit géntee kii ni man dama gént di nar radin kii ni man damaa gént picc daanaka di tag sama bopp bi di lekk mu ne ko suba naa leen ko firil mu xëy suba ni kii kii nar redin da nga delluwaat ca buur ba di ko nala tàngara muy naan mu ne ko ki nga xamante ni maanaam dangaa gis ay baaxoñ di lekk sa bopp bi mu ne ko dinañ la yeew suspendre la rab yi baaxoñ ñi ñooy tag sa bopp bi di lekk ñu ne ko dañ lay nax mu ne bis ni laay sunu borom def na ko yow mii di nga dem ca pale ba fag ne woon da ngay posé na buur ba di nal raisin kii dinañ ko rey teguñu ci ñetti fan mu def loolu waaye ba ñuy génn daf leen wax ni ah bu ngeen demee ngeen ni buur bu leen ma fàtte sunu borom ni kon Yuusufa day wàkkiirlu ci kudul man tegaat ko fa mu gën faa yàgg defaat fa ñetteet korook ba ñu toogee ba buur bi gént ne ah am na lu ma jaaxal dama gént nag yu suur kooku nag yu suur fees ca kaw di lekk nag yu nag yu jeex yi di leen lekk ma géntaat maanaam ñax mu woo mi dem fekk ñax mu tooy mi di ko lekk koroog la ñoo ñu toog ba seen xel dem ñu ne ah firi gént gént amoon na ci kaso bi yuusufa mu andi ko ci buur bi buur bi ni ko yuusufa ni ko li muy tekki maanaam mooy juróom-ñeenti at yu njëkk yi naataange day am bekkoor day am waaye buñ ci toggee juróom-ñeenti at ya ca topp sunu borom day def bekkoor mu ne ko nu ñu ne mu ne ko nañ taxaw ay sato taxaw ay sata ci kàttanu yàlla ko tax laa bu ñu ko tabaxee incha allah rabbi képp ku war àdduna bu xif gi jotee danañ ñëw korook la doom bàyyi ñëw mu wax leen ni yéen a loroon Yuusuf ana seen rakk ja wax leen lépp ñu waay seen baay ba ba nga xamante ne seen baay ba nee nañ jooy na juróom-ñeent fukki at seen gumba ngir Yuusufa moo waral at mii at mu njëkk mi nañuy saraxe di ñaan dafa toll ci ay jafe-jafe ak ci ay musiba ak ay balaa kenn ku ne ku ko mën nanga nga saraxel sa njaboot ku say mbir dëgër na nga jënd 33 pomme 33 banaana nga jàng ci yaa benn bu ne bisub samdi nga saraxe ko ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ca dimaas ja ku ko mën nit boo ko mënee amoo ko na nga jënd ñetti pomme ñetti banaana ñetti orange nga fanaanoo ko bisu alxames nga saraxe ko ku bëgg sag njaboot mucc ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala na nga fexe li nga xamante ne mooy kilo dugub kilo mboq kilo ñebbe nga ñaan ci say soxna saraxel leen ko ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ñi ñu liggéey njabar leen fee mbir di tëju ci kàttanu yàlla tabaaraka nañu fexe li nga xamante ni maanaam mooy kilo ndawal ñu jënd ko incha allahu rabbi jël yàpp wi def ko ci suuf def ci ndox ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala buñ ci defee ndox ban ndox mi tiim yàpp bi ñu jël yàpp bi seppi ko saraxi ko sangoo ndox mi muy ku ñu njabar may naa ko ñëpp ndax at mi njëlbeen gii ak élection yi ñu jëm ak jafe-jafe ak sacrifice maa ngi artuwaat képp ko am doom ju ndaw ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ju tomb ci ñaareet at juróom-ñeenti at na nga moytu élection yi nar naa rëpp rëpp goo xamante ni nar naa bari sacrifice sacrifice goo xamante ni ku yor sax njaboot fa muy jàngee nee ko bu mu wuy ma Sàmba bu mu wuy ma Demba ku mu xamul bu mu ko yónni bu mu koy jox sarax ndax sacrifice yi dafa bari te dara waralu ko lu dul politiciens yi ak ñi xëccoo nguur ak nit ñu bon ñi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala sëriñ bi. Euh, hmm. wax nga ko wërngam réew. Ah. dem nga fu ne ci hmm. àddina. Ah. am ndaw ñoo xam ne nii jamono jii loolu moo leen teree nelaw bëgg a tukki. dëgg la te dara waralu ko lu dul ah. ñàkk kay këyit ak yi ni mel ba waral ñuy jël gaal geeg yooyu. Hmm. ana lan nga mën ci xale yi ngir ñu mën a àgg fa ñu bëgg a àgg. waa incha allah ci kàttanu yàlla mu mel ni waxoon naa la almet ji nga xamante ni kenn ku ne xam na ko ci ñun muy ñi nga xamante ni fay nañ leen ñu bëgg a takk ci kàttanu yàlla tabaaraka am nañ sangatu almet goo xamante ni dañ la koy defloo ci ndox am ñu la wax nga sangoo ko ci kàttanu yàlla tabaaraka ne almet di leerale ne almet di taale sunu borom dimbali la nga yegg ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala mu mel ni réew mi ni nga ko gisee metti na la maam Cheikh di waxoon rek mi ngi mel ni ku toog ci or wala toog ci toog ci jamaa ci kàttanu yàlla tabaaraka wa di bay tamaate wala ñambi wala carotte ndax ñam fekkoon ci sëñ Touba dëkk boo xamante ne na or ba génn na jamaa ba génn na pétrole ba génn na nit ñiy gobar jaasi ku añ doo reer ku añ doon dëkki ku reer doon léeg-léeg nga dab nit mu nuyu la nuyu gu yaru nuyu gu yeewu ndakate lenn rek moo ko tax a jóg di la dagaan soxlaam te as gor la mënta sàcc mënta dem fenn mu di la ñaan réew mi metti na xale yaa ngi jël gaal gi xale yaa ngi dox nit ñaa ngi mel ni dañ leen a xabtal ma waxoon fii ni la ren gis naa ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala xale yi dinañ songu géej gi faatu ci faatu goo xamante ni nit mënu koo expliquer nit mënu koo comprendre incha allahu rabbi tabaaraka wa taala mani la yow doonal nit koo xamante ni nii ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ren ku yor sa njaboot ñaanlul sunu borom musal leen ci gaal yi lu ko moy da nga toog sa njaboot faatu ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala na xale yi ñaanluwaat na xale yi saraxe waajur yi vigilant waat ci kattanu yàlla tabaaraka wa ndax dëkk bi tas na te day gën a metti day gën a yéeme ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala loolu daal ku ko mën na ko def incha allah rabbi saraxe ndox saraxe soow ku ko mën di ko defal sa njaboot loolu baax na ku ko mën juróom-ñaari tàndarma juróom-ñaari yu weex juróom-ñaari sondel juróom-ñaari papier blanc nga boole ko ndox mu sedd di ko saraxel sak njaboot di ñaan suñu borom musal leen ci musiba yi ak balaay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala incha allahu rabbi mbiru soxna yi loo ci yor jigéen waa mbiru jigéen ñi moom kenn ku ne xam na ko ci man daanaka Cheikh Moussa Fall borom yokku bi borom yokk bi nga xamante ni xam nañ ko ci ñun maanaam képp koo xamante ni ñeme nga ma. Cheikh Moussa Fall borom ñaari ñëpp ak xaj Cheikh Moussa Fall borom ñaari ñëpp ak xaj nee naa góor goo xamante ne awra day dellu wala soxna yi kontaanuñu wala soxna yi mënuñu dara incha allahu rabbi boo seetee Cheikh Moustapha Fall Kéemaan incha allah rabbi mu nga mel ni fasu naaru góor wala fasu berkel ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala incha allahu beneen bi nga xamante ni xam ngeen ko ci ñun muy Cheikh Moustapha Fall borom bi ñi nga xamante ni am nañ borom kër ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala kenn ku ne xam nit ki booy wujjee wala nangam dangaa bëgg lu neex sa borom kër yokku taat yokk ans yokk ween ci kattanu yàlla tabaaraka wa am nañ ko am nañ pommade bi am nañ comprimé bi efficace une semaine jàpp di jours nga mel ni nga bëgg ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala incha allah rabbi mu mel ni lii xam ngeen mu muy warga boo xamante ni moo nekk nii ñi nga xamante ni am nañ biir bëgg biir bi jeex ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allahu rabbi sunu borom dina def boo ñëwee fii ñu wàññi la ko ci kàttanu yàlla ñi nga xamante ni maanaam am na njaram bëgg a jeex neexu leen bu ñu seetee Cheikh Moustapha Fall Kéemaan jox leen ko incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ñi nga xamante ni nii incha allahu rabbi tabaaraka wa sunu borom def na. ñi nga xamante ni maanaam yaatu nañ te bëgg a xat buñ ñu seetee ñu defal leen ko ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala bagage yi jigéen ñi yépp a ngi fi képp koo xamante ni seet si nga ñu daal incha allah rabbi boo ñu seetee suñu borom defal la ñu yokk say mbir sunguf yi xaye ngi fi fuufa ngi fi ndimbalee ngi fi kenn ku ne xam na kook ñun fasu jigéen ñu wéru ci mi ngi fi képp koo xamante ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ëmb nga incha allahu rabbi tabaaraka wa ngay nit koo xamante ni ëmb dalay sonal boo ñu seetee di nga am doom ci lu yomb ci lu jege incha allahu rabbi tabaraka wa taala ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi tabaraka wa taala loolu nañu ko bàyyi xel incha allahu rabbi sunu borom def Cheikh Moustapha Fall ñëpp a ngi fi beneen biit muy ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci football toujours dañ ma ciy sonal ñi yëngu ci wàllu pari di yëngu ci wàllu méga million dégg ci waat 2 décembre buñ ci seex seet see Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall borom jéenu jéeni mi ngi nii incha allah rabbi ci kattanu yàlla naar bi yow yaa koy xaw a rey waaye dootu la rey ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala Cheikh Moustapha Fall borom def gis ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala sëñ bi junj nga ko. Mm-hmm. ñu yëngu ci wàllu pari foot ak yi ni mel. Mm-hmm. ñu dëgmal kaan. ca Côte d'Ivoire Sénégal mm-hmm. war a dem. Euh, ndaw ñi nga xamante ni ñoom seen wërsëg ñu ngi ko ñu ngi ko wékk ci match yooyu. nooy def ak ñoom ak équipe bu Sénégal bi foo ko gis. waa incha allah mu mel ni équipe bi moom li ñu waxoon rek kilifa gu mag waxoon na ko fii ba deux mille vingt cinq ci kàttanu yàlla tabaaraka wa maa ngi ñaan daal avant ñoo dem képp koo xamante ni mën na ko. ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala nañuy saraxe buñ ko mënee bala ñoo jéggi fenn nañu fexe jël ay giléem saraxe ko ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ñi fiy desit équipe bi football lu ñu mën ci laax mën ko ci cere sàkkusaan nañ ko saraxe sunu borom defal leen ndam ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allah rabbi ñu ñaan sunu borom defal ñu ndam la ñëpp xëccoo ji ñu am ko wàllu pari foot daal ñu ko bëgg. di ñu ci seet di ñu ci ñaan incha allahu rabbi bu ñu ñëwee fii ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ñu dimbali leen ci incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa benn rek bu ñu fàttee bu ñu ci laaj gi mayee maanaam kenn ku ne xam nga fi actualité toll mbirum Ousmane Sonko boon ci laajee ak yi xew ñu mujj ci làmb ji fa nga jëm incha allahu rabbi. Euh, danañ ci ñëw. Hmm. dafa hmm. am loo xamante ne nii. bokk na hmm. ci li ñu fi gën a gën a gën a andi. Hmm. làmb dafa jot. diggante Boy Niang ak Modou nga am loo ca euh, diggante Modou ak Ama Balde. nga am ay kàddu yoo ci yëkkati. ñu gis mel ni la nga waxoon ak la am dafa waroo. ba tax benn maara bu ñuy wax sëñ Bada. lu ne yàq na la ko ci internet bi. collage na la yàq la lu mel ni xeme. Euh, ne la daanu nga. da ngay nangu ne daanu nga. waaw waaw ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala maa ngi tuubal yàlla ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala sunu waajur bu baax soxna Xadi Faal Faal yaaram daf noo tere sax ñuy wax ci làmp waaye samay wax kenn ku ne miin na ko kenn ku ne xam na ko maanaam man lu may wax ci kattanul yàlla tabaaraka wa taala nee naa gis naa jël boo xamante ni Modou Lo Ama daf ko ngadd mu rëpp ñaari tànk Ama jóg dem won ko lu sunu borom di wone nag di sob la ca des moo koy wone kenn ku ne gis na ni première chute Ama Balde ngàdd na Modou Lo bi mu koy jàpp Modou Lo rëpp ñaari tànk yi def deux appuis am na sax ñu koy vaar naan quatre appi la bi Ama naan sengoor laa tee mu rëcc moo tax. ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ñu wanoon ma ci leer nañ ma di ko wax sëñ Bada nag dafa jël sama vidéo boo xamante ni am na ñaari at mu jël ko taf ma saaga ma ci waaye bi ma saagaa xam na ni saaga na góor xaw ma xam na ma xaw ma xamu ko ñi ma ko envoyé nee nañ ma kii day xam naa ne bu leen jege woon te xam la di ngeen laale mu jël sama vidéo bu def ñaari at saaga ma te video boobu bi ma ko defee li ma ci leer na ndax tubaab du fen bind la bëgg ak lu wóor juin 2021 laa ko def nañu xool at yooyu ah Modou ñaata yoon lañ jàpp làmb ji mu yàq ko te la ma waxoon dafa leer nañ Modou fa mu demoon ba fiir fa nit ba yóbbul ko boppam hôpital loolu laa waxoon ca vidéo ba ma ni leen bu bëggee sëriñ ba mu demoon ma wax ko ko wax ko kër sëriñ ba wax ko néeg bi ba wax ko fa sëriñ bay toogee sëriñam bañ naan ma silla dina ma seetaan moo ma woo ni ma xam nga ma ba ni ko déedéet mu ne ma man na ma silla man maa ñaanal mu loo tey sox sëñ bi su ma sañoon kat nga moytu làmb ndax làmb dafa danger tey xale yi dañoo doyar ma ne ko bu dee sama jëmm rek kontaanal sama fitna dal waaye mën naa nëbb nag ndax ni laa mu méttee waaye li ma wax boo ko weddee it Modou du ko weddi moom la sëñ Bada sëñ Bada nag di defi daf ma saaga ñin maan boo ko yóbbu ci yoon mën leen du ma ko yóbbu ci yoon ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala naa jëflanteeg moom ci baatin sëñ Bada c'est le défi ku ko jot vidéo nag ko jox ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala góor gu góor yi saaga ndeyam duma nit koo xamante ni ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala incha rabbi li ma wax. képp koo xamante ni jigéen daf lay jur doo ko dindi ndax lu leer nañ lu ma jinne di woon lu ma rawxaan woon ma di ko wax te 2018 ba léegi maa ngi wax ba may wax ci sonk kenn waxul ma may wax ci gaal yi kenn waxul ma may wax ci lakk-lakk yi kenn waxul ma may wax ci jàpp soog kenn waxul te kenn mësuma vaar waaye Sénégal moo bari ay xaj yoo xamante ne duñ la lijjanti ci booy def résultat waaye lu ndaw loo juum danañ ko jël kolaas ko moo tax Serigne Bada Délé defi naa jëflanteeg moom ci baatin ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ba mu xam ni man doonuma Serigne buy toog ci tele bi naan dama doon fen dama doon naxaat sama guerre moom tàmbali na te lum mën na def fu yaakaar ni def woo naa ko GTS bi éméw moo Serigne Bada naa ni ko duma góor goo xamante te Ama Baldé la ma doon wax moom laay wax ci moom ndax ba may ne daara di jàng laa amante woon papaam wóllëre xam yaayam xam ay magam xam jine xam kumba xam xam ki nga xamante ni maanaam mooy papa disil mi nga xam sunu borom yóbbu na ko papa xam demba xam ñoom ñëpp miinoon kër ga di fa yalwaan sama daar ak foofu jo man leen Ama Baldé lenn laa ko desel muy jël roi bi teg ko ci loxo muy roi de tëdd billaahi la laa ilaha illa huwa leen na ma dese ci làmb te dootuma wax ci làmb dootuma ñaan ci làmb fii ak bën 2025 ma jël roi des arènes teg ko ci loxol Ama Baldé ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ndax kenn ku ne nee naa leen Ama Baldé raw aanu maayu la yor muy ndox buñ ko mënee am na chute boo xamante ne bañ ne suba la la fi jóge ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ma ne leen bu ko mënee nañu génne ndox génne jën ndax rawaan boobu saraxu Ama Baldé laaj na ko bi ma demee xool vidéo yi am na chute boo xamante ni ku ko ci tàppe da nga ko gis buntu kër Ama ci bi ñuy génn gis naa nit ku jël suufu géej jël ko samp ci ay jën waaye sarax bi tu noonu ñi xam làmb xam lépp xam nañ Ama ba bi muy dugg ci géew bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala làmb jaa ci loxo waaye làmb làmb ñaan ak ay tegtal ak ay sarax moo koy ñàkkloo moo war a Ama Baldé ñàkk la bi kenn ku ne xamoon ni Ama Baldé wérul billaahi ladi laa ilaaha illa huwa man biñ ne ginnaaw suba làmb ji won nañ ma ko fii ma ànd ak moom di wër géew bi am ay nit ñu daggee ci Modou jam ko paaka ba mu tëdd man maa doon tàkk ci ñoom pakkalaa ak ñi nga xamante ne maanaam mooy rakkam ji ñoom euh, beneen rakkam ji naan lan moo tax ngeen seetaan ba mu am lii te xam naa ne paaka bu duggee ku ñu jekku la liggéey bu ñu jam la sama benn mbokk sëriñ ne ma doo defaat vidéo ma ne ko man mënumaa wane ginnaaw nanu ñaan tey saraxe ba lu yàlla def waaye billaahi lazi laa lay illaa huwa liñ ma wonoon ci Ama Baldé Modou Lô dafa leer nañ ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala foofu dañu koy tëj dem ci wàllu actualité politique bi. Hmm. Ah, liste yi fi mu toll nii dugg nañ ba ñu ci rejeté ñenn ñi rejeté nañ leen am na ñu jot a raw am na ñenn ñoo xamante ne nii ci ay fan yu néew danañ jàngat seeni mbir. Hmm. waaye sa waaja Ousmane hmm. Sonko ba léegi hmm. ay mbiram kenn xamagut nan lay mujje dana ci bokk wala du ci bokk loolu daa mel ni sëñ bi yaa ñu koy wax. waaw mu mel ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala li ñu dal muy dangeen na ñëwoon bi ngeen ñëwee man leen Ousmane Sonko day gis naa ay mbir yu ci moom. te buñ ko jàppee tiit naa ci bakkanam bi tiit naa ci yaram bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala maanaam fii ma gis ah bu nu fonkee sarax fonk ñaan ñi wóolu Ousmane Sonko di ma dégg billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa carte gi tourné na fi mu ñaar rekk a ci des ndax dama gis mbooloo mu taxaw waa kër Amadou Ba taxaw waa kër Sonko taxaw maanaam ñi yore yat ñu yore ay ngànnaay police jokki-jokki dox seen diggante kenn ku ne taxaw mu mel ni policiers yi dañoo dem génne Ousmane Sonko jiital ko biñ ko jiitalee mi ngi sol mbubb mu marron ak benn chemise bi mu ko solee jël mbaxane yi joolaa yi sol xaw ma beereel xaw ma nu mu tudd yor ko ñu ànd ak moom nit ñi di xool bañ teg ko ci benn pëjëm teg ko ci benn tribune toogloo ko ci siège jox ko yetu buur solol ko mbaxane buur te loolu kat falu lay tekki génn naa ko yàlla li dëpp nii bu ñu yéexee ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala sonk Sonko ay mbiram xeeñ na ay mbiram rafet na élection yii ma gis ñett ñii daal ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala buñ saraxee ñoom la ñuy waxal te feeñ nañ muy Karim Wade Ousmane Sonko Déthié Fall ne woon naa leen daf ni njoxet génn te loolu ay parrainage am wane na ko waaye beneen jigéen gu ndaw gu ñuul bu ñu demee ba deuxième tour ci kàttanu yàlla tabaaraka ko taala kenn ku ne ni nga ko soxla ndax donte benn xob la dafa war a bokk ci ñim lay booleel nga jël réew mi waaye ñetti ñi ma gis muy Sonko di Karim di Déthié Fall incha allahu rabbi ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala sunu borom won na ma leen jëratan ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala kenn rek laa xam ne bu yeboo mu ñaanlu te dolli soroxe dinañ ko war dina gis ay noonam te bu nguur gi jeexee di nga dégg coow lu rëy ci digganteem ak muy Macky muy Amadou Ba gisuma ko sax ci deuxième yi ca ndaaree laa ko gis te loolu buñ ca jógee dana leer dana feeñ ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala kon daal Amadou Ba moom jegewul fenn. Amadou Ba jegewul fenn ndax ñi mu àndal damaa gis bu ñu àndeek moom di ko yuuxu sol ay tisetam ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala dafa am lu ñuy def ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala li ñuy def muy bu nu yuuxoo ci kattanu yàlla tabaaraka di Amadou Ba Amadou Ba. ba mu won leen ginnaaw dafa mel ni dañ koy ree dañ koy mukke bu leen wonaatee kanam ñu àndaat ak moom ma xamante ne ay workat ak ñu ko yàq yéene rek la àndal ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala waaye ku ko mën na nga saraxe te ñu waajal sunu borom def jàmm ci élection yi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala lu yéeme lu doy waar dinañ ko gis incha allahu rabbi. sëriñ bi fi ñuy mujjee mooy mbiri Ndella Madior Diouf dafa mel ni jot nga ci. Mm-hmm. ay gone yu mu yoroon amoon ci euh, yéene ju baax ba far mujjee. Hmm. loolee ko mujjee yóbbu kaso. Hmm. Euh, loolu noo ko jàngatee. waaw mu mel ni jigéen la danu koy ñaanal ndax sunu borom moom daa bind ay soxna ak ak njaboot ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ñuy yàlla ni maa leen ko nattoo muy ak wërsëg ci yéen ci kàttanu yàlla tabaaraka wa léegi nanu ñaan ci kàttanuk sunu borom tabaaraka wa taala allahu rabbi sunu borom musal ko ndox xosa duñ ko yéene kenn waaye bu fekkee bëggoon na def lu baax rek moo ko tax a jóg yàlla na ko sunu borom génne fam ne waaye bakkan sunu borom def ni inna nafsu bi nafsi bu fekkee sunu borom def na li nga xamante ni moo ci nekk nii ñu naan dafa sàggan da doon sàggan xale na xam ne bakkan du caaxaan nit booy dugg ci dara na ko dugg ci bëgg-bëgg na ko dugg ci yéene ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala waaye bu fekkee sàggane bakkan ak def lu la neex ci kàttanu yàlla tabaaraka wa mooy tax sunu borom ŋàññi la wala sunu borom teg la nattu loolu kat lu ñaaw la waaye kenn du na ci kaso sunu borom di ko di ko di ko di ko di di di ko di ko di ñu sunu borom teg ko nattu nga di ko yéene loolu waaye na xam ne lii mu nit ñi wax ñu doon liggéey ci moom ak sàggante moom kenn waru waru ko jëmle ci xale ndax koo xamante ni bu feebaree ne du la wax ne damaa feebar bu xiifee du ne damaa xiif xale ku amul yërmande waroo koo téye ñu ngi ñaan suñu borom génne ko fa te xamante ne nattu képp la ndax kenn ku ne xamoon na ni fi mu yeggoon ci àdduna yegg ko ci tur amoon na yërmande di jël bébé ku ne mu di la ko tuddee bu ñu xamoon ni fii lay mujj du fa dem waaye ñu ngi koy ñaanal suñu borom génne ko fam ne génne ko ci xat-xat yi moo képp ku nekk kaso ci kàttanu yàlla wàllu kaso it ñi ñu tëj am nañ ci ay secret yoo xamante ni bu ñu seen yaay yi ak seen papa yi seet see allah rabbi ci kàttanu yàlla dinañ leen ci dimbali góor ñi nga xamante ne néew nañ kàttan nga xamante ne amuñu kàttan bu ñu seet sunu borom dana def ñu dimbali leen ci incha allah rabbi wàllu siti wàllu imurit ñi nga xamante ni takk nañ leen xala ay soxna def ko. wala kenn ku leen bañ def ko wala kuñ doon jamaaleel def ko incha allah rabbi buñ seet see Cheikh Moustapha Fall Kéemaan mu dimbali leen ci ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala. Cheikh bi kàddu gi ak at bees bi. waaw incha allah mu mel ni ñi ngi ñaan sunu borom def ci at mi jàmm def ci at mi xéewal ci kàttanu yàlla tabaaraka wa sunu borom defal ñu jàmm defal ñu tawfiix incha allah rabbi def ci at mi jàmm maa ngi ñaan ñaan bu déwén maree ñaaw yàlla mel ni yàlla mel ni daaw waaye daaw moom ëpp noo def bakkan yi bari na ñu rey bari na agresseurs yi bari na ci kàttanu yàlla yàlla na sunu borom def ci réew mi jàmm def ci at mi jàmm mille vingt 2024 bi pétrole yi génn jamaa yi génn oor génn jàmm am ndaw ñi bañ a demati fenn ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allah waaw sëñ Bada nag moom xam naa ne dinañ jëflante ba pare ma soog koo baal ndax damaa def lu ma yéeme man kenn du saaga sama ndey ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala